dalleen nag jàmm ci suñu daara SVT ci wolof tey waxtaan bi ñu koy fas yéene jagleel benn jàngoro bu ñuy faral di gis lu bari ci kër yi ci jamonoy nawet feebar bi ñun ñëpp xam nañ ko mu di jàngoro sibiru tubaab bi di ko wax palodism waxtaan bi ñu ko fas yéene tënk ci ñetti poñ poñ bu njëkk bi mooy nekk nan la ñuy xàmmee jàngoro yu sibiru maanaam nan la ñuy xàmmee nit ki nga xamante ne dafa ame feebaru sibiru poñ bi ci topp dana nekk nan lañu sibiru mën a dale maanaam nan lañu feebaru sibiru mën a dogale poñ bu mujj bi mooy nekk nan lañu mën a fexee ba xeex jàngoro yu sibiru maanaam nan lañu mën a def ba jàngoro yu sibiru duñu dal bu ñu jëlee suñu poñ bu njëkk muy nan lañuy ñuy xàmmee nit ku sibiru wala yan màndarga mooy wane nit ki dafa sibiru mën nañ ci tàmbale ci màndarga yi ni ku sibiru day mel ni yaramam dafa diis day mel ni ku yëg ni dafa sonn bokk na ci tamit yaram bi day tàng jër muy ñaq lu bari mais moom ci boppam day yëg ni dafa liw te dinga gis ni dina nekk di lox dina am tamit ay bopp buy metti bu muy yëg dina ànd ak léeg-léeg ay waccu yenn saay sax mën na dem ba ànd ak biir bi di daw dina sentir ni yenn saay yaram bi féex na tuuti mu jékki-jékki mu mel ni jàngoro bi da ko songaat loolu lañuy wax ay accès de fièvre donc ñu ñëwaat ci tënk dina dina sentir ni yaram ba dafa diis yaram bi dina tàng dana ñaq dana yëg liw bay lox dana am mettitu bopp dinañ gis ni daan ay wàccu léeg-léeg tamit dana ànd ak biir buy daw yooyu lañu ñu mën a tënk ci màndarga yi nga xamante ni képp kuñ ko gis ci moom mën nañ njort ni kii dafa amee jàngoroy sibiru ñu jàll ci suñu ñaareelu poñ muy nan lañu sibiru mën a dogaale pour tàmbali dañuy xam d'abord ban microbe moo mën a indi jàngoroy si biiru microbe lañ ko mën a waxee ci suñu kàllaama waaye benn parasite la bu tudd plasmodium plasmodium boobu bu duggee ci nit ki day daw ci deretu nit ki loolu mooy waral nit ki di am jàngoroy si biiru donc kon mën nañ jàpp ni l'agent pathogène du paludisme est le plasmodium donc lii indi jàngoroy paludisme mu ngi tudd place bu jub loolu mooy benn ba ca ëpp solo mooy ñu ñëpp xam nañ ni jàngoroy sibiru màtt-màtt yoo moo koy indi waaye nag bés bu nekk ñu gis ni yoo màtt nañu te du tax ñu sibiru donc du yoo yëpp ñooy indi ñooy indi jàngoroy sibiru benn yoo la mooy yoo bu jigéen bi moom mooy indi jàngoroy sibiru mooy lanofel femelle kon léegi ci tënk ñu expliquer ko si nu mu gën a yombee pour ko nu mu gën a yombee dañuy jël benn exemple dañuy jël benn misaal ñu jël ñaari nit kenn ki mi ngi tudd Amadou dafa sibiru keneen ki mi ngi tudd abdu moom dara jotu bu yoo bi ñëwee màtt Amadou xam nañ ni plasmodium bi day nekk ci deretu Amadou waxoon nañ ko sànq newoon nañu képp ku sibiru parasite bi tudd plasmodium day daw si sa biir deret te yoo xam nañ ni bu nu bu màttee nit day muucuwaale deret bi donc yoo bi mu màttee Amadou dafa muucu deretu Amadou yóbbuwaale plasmodium yi nga xamante ni mi ngi woon ci deretu Amadou plasmodium bi nekk donc plasmodium bi mi ngi ci biir yaramu yoo bi day dem di multiplier wu ba ñëw ba àgg ci tuflitu yoo bi yoo bi bu demee màttaat abdu mi nga xamante ne dara jotu ko woon ci tuflitu yoo bi plasmodium bi dafay jaar duggaale ci yaramu abdu mi nga xamante ne dara jotu ko woon bu plasmodium bi duggee ci yaramu abdu day daldi di multiplier wu daal jox abdu jàngoro yi ma tënkaat ko Amadou am na sibiru yoo bi màtt na ko yoo bi yóbbaale na place ma jom yi dem màtt abdu mi nga xamante ne dara jotu ko woon mu dugalaale place ma jom bi ci yaramu abdu dal di koy wàll sibiru noonu la sibiru di duggee ci yaramu nit léegi mën nañ jàll ci suñu poñ bu mujj muy nan lañuy def ba mucc ci jàngoroy sibiru gis nañ ni jàngoroy sibiru ñaari mbir a ko yor bu njëkk bi muy plasmodium qui est l'agent pathogène du paludisme bi si topp muy yoo bi mooy le vecteur du paludisme qui est l'anophèle femelle te xam nañ ni màtt màtt yoo mooy indi jàngoroy sibiru ci yaramu nit ki kon nan lañuy def dañuy fexe ba yoo bi duñu màtt ngir ñu mën a mucc ci jàngoro yi ci donc kon ñu dem xool nan la ñuy def ba mën a moytandiku màtt màtt yoo kon pour loolu dañuy intéressé wu ci yoo nan lay dundee bu ñu xoolee ni yoo dundam ci ñaari bërëb la koy dunde am na benn wàll ci dundam da koy dund ci ndox mi am beneen wàll boo xamante ne day génn ndox mi parce que yoo bi day dem seet fi nga xamante ne am na ndox mu teey maanaam ndox moo xamante ne yëngatuwul mi ngi taaje mu teg fa ay nenam nen yi bu ñu demee ba toj dinañ indi ay xeetu lu xaw a sax sax lañ ko mën a misaale waaye du sax mi ngi noonu ñuy gis yooyu nag ñooy dem di évoluer ba joxe yow bu génn ci ndox mi di naaw pour mun a dem ba di màtt nit ñi kon gis nañ ni yow ci ñaari bërëb lay dund bërëb bu njëkk bi ci ndox mi la bërëb bi ci topp mooy yow bi naaw kon bu ñu bëggee éliminé yow boobu mën nañ ko éliminé ci biir ndox mi maanaam ñu fexe ba ndox bu taaje du am ndax bu amul ndox bu taaje yoo du am fan lay teg ay nenam kon nañu éviter di teg ay ndox yoo xamante ne soxlawuñ ko kon bu ñu raxasee ba pare nañ ko tuur di éviter ndoxu taw yi nga xamante ni ñi ngi taaje du yàgg ndox lu mu tuuti tuuti buñ ko xeeb même bu dee kopp ndox la bul ko xeeb ndax boo tegee kopp ndox lu yàgg wala nga teg benn butéel def ci ndox lu yàgg yoo bi mën na fa ñëw teg fa ay nenam nen yi di évoluer ba génnewaat beneen yoo wala bu fekkente ni am na ndox mu taaje comme ndoxu taw yi mën nañ fa teg ay produits yoo xamante ni dina tax lépp lu nekk ci biir ndox mi dana dee beneen wàll bi mooy bu fekkente ni yoo bi dem na ba génn ci ndox mi bay naaw nu ñuy def mooy fexe ba yoo bi du la màtt pour loolu pexe yi bari na am na ay produit yoo xamante ni day rey yoo bi am na ay pompe am na ay xeetu cuuraay yoo xamante ni njëriñam mooy rey yoo walla dàq yooyu am na ay xeetu pommade yoo xamante ni boo ko diwee day tax yooyu duñ la màtt waaye bi ci ëpp solo mooy ñuy fanaan ci suufu moustiquaire ndax yooyu guddi lañuy ëpp lu ñuy màtt bu fekkente ne fanaan nga ci moustiquaire dina la mën a muccal ci yooyu bañ la màtt ci guddi gi kon di fanaan ci moustiquaire am na solo torop pour moytu jàngoroy sibiru kon yooyu bokk na ci yenn feem yoo xamante ne mën nañu tax ñu moytandiku feebaru sibiru ndax nekk na feebar boo xamante ne feebar bu xaw a doy la ndax mën na dem ba faat doomu aadama ji wala mën na dem ba yóbbu nit ki ci muy délire maanaam muy mel ni ku tàggook sagoom di wax yu kenn xamul rawatina tamit ci jigéen ñu maanaam ñi nga xamante ni dañoo wann lool ci ñoom la gën a doyewaar ndax ñoom mën na dem ba tax soxna si ñàkk doomam wala mën na sax dem ba faat soxna si nga xamante ne dafa won lool donc kon ñi nga xamante ne dañoo nekk jigéenu waru ñoom ñoo war a gën a farlu ci jàngoroy sibiru parce que am na yeneen détails yoo xamante ni jaruñu ciy dugg parce que day gën a compliquer explication yi moo tax dañuy jël nu mu gën a yombee moo tax dañuy laal ci kaw rek ba ñu dugg ci aspect scientifique bi donc kon ñu jàpp ni jigéen bu wannu lool war na gën a fagaru donte nag nit ku nekk war na fagaru pour moytandiku sibiru waaye rawatina jigéen ju wannu lool dafa war a gën a moytandiku maanaam ci def nan di tëdd ci moustiquaire te di watandiku yoo màtt ko kon loolu lañ leen indiloon tey ci suñu daara SVT ci wolof ñu leen di ñaan bu fekkente ne vidéo bi neex na neex na leen ngeen like ko te séddee ko ak seeni soppe wala ak seeni am di jàmm ndax ñu mën a xam li ngeen xam ci sibiru ba mën ko moytu jërë ngeen jëf